asalaamualeykum wa rahmatulahi taala barakaatu bokk yi déglu noo ngi fii ci kanam sëriñ Bassirou Anta xalifa borom daaru muti muy sëriñ Bassirou Anta Niang di xalifa Cheikh Ibrahima Faty Mbacké alxames ñaar fi fan ak benn ci weeru janvier 2021 mu bëgg yëkkati kàddu gannaaw bi nga xamee ne toog na toogaayu borom daaru muti wuutu magam yu baax yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu allahuma salli ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi yi Bachir Mbacké maa ngi leen di nuyu di bëgg waxtaan ak yéen ñu waxtaan wi it weesuwul cant ndax ba fi sunu kilifa gi demee ba fi ne kenn noppaluwut ku ne yaa ngi kër kër yi di sonn guddi ak bëccëg te loolu lépp bëgg borom daal rek moo tax war na bu amee ba ba yegg si fii nag Euh, war nañ leen ci sant bu baax a baax a baax a baax di jiital ci cant gi di say mun taxa mi nga xam ne taxaw na ko taxaw bu rafet lool di feddali sunu taalibe ci moom bu baax a baax a baax ak waa daaru ñëpp di ko xamal ne noo ngi ci loxoom noo ngi ñaanit mu yàlla yàggal ko fi te wéral ko te gën ko daaral bu baax a baax ba lim yéene ci Sëriñ Tuubaa moo mën ko fu mu toll noo ngi ñaan loolu maa ngi nag yàlla def na wax dëgg yàlla boo gisee mu yéex bëggoon noo waxtaan ak njaboot gi yëpp rek loolu moo tax waxtaan na jàng ñi ñu war waxtaan ak ñëpp yooyu daaw naay ak mm, ay sëtam ñëpp waxtaan nañu ñoom ba loolu neex leen lool loolu nag moom ban war nañ leen ko jottali liñ leen di jottali it mooy xam ne baatub Daaru Muxti daal na ko sëñ Abdou joxe woon mm, sëñ Bachiru Abdou Khoudous mu yor ko ba jóge fi Baye Cheikh Khady moom it ñu jox ko ko mu yor ko ba jóge fi sëñ Abbas yor ko mu ba jóge fi noonu rek moo fi dox ba tax na jox nañ ko ko. Mm, ci xol bu sedd noo ngi ñaan yàlla dimbali ko nag ba mën a dem demin rafet te dara bañ koo gàllankoor mm-hmm. te lépp loo xam ne lii yéene na ko fi e, ci lu rafet li nga xam ne mooy doxal dëkk bi yàlla may ko mu yomb ko lool taamee ko dam ko bëggee mm, ginnaaw loolu ginnaaw loolu ginnaaw loolu nag noo leen di xamal ne ah, mbir nam na mu woon sax xelam doy nanu xelam doy nanu te eh, lu ci liñ ci war a dolli dana ko dana dolli waaye nag eh, amut leen loo xam ne li luñ ci war a saxalaat la xanaa dayral ñi fi newoon rek ñu ki newoon rek muy Serigne Cheikh Oustapha ci chef du village gi bi yoroon moom mu ngi ci loxoom jox nañ ko ko na ci góor góorgóorlu bu baax ba liñ ci bëgg lépp nu am ko ci waaw ndax mbir yi nag gàtt na lool sax waaye daanaka dafa jarul guddal boo tax ndax moom buñ tuddee sëñ Muntaxa rek tudd ñebootu borom daaru ay sëtam ak i doomam loolu dafay daal di doy day sëkk waaye nit bu sonnee yow te xam ne daanaka lu mat euh, ñaar fukki fan a ngi nii ñuy kër kër yi bu loolu wéyee war nga leen woo sant leen te xamal leen ne xolam sunu xol sedd na euh, fas nañ yéen it lu ñuy def ànd ko yéen ngeen yëg ñu yëg ko ba ji. kàddu yi la ci sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdoul Khoudous Mbacke teg. alxames ñaar fukk fan ak benn ci weeru janvier 2021 kon ñu bokk déglu sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khoudous Mbacke porte parole. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi nuyu bokk yépp mboolem ñi ñu bokkal borom Darou Mouhty di sant yàlla suma boroom si lii nga xam ne may na nu tal ak fekke di yëkkati sunu kàddu ci ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi sëriñ Bassirou mi nga xam ne tey su tey moo di borom Darou Mouhty sëriñ Bassirou Anta di xalifatu Cheikh Ibrahim boroom Darou Mouhty yëkkati kàddoom jëmale ko ci sunu jëmm yu tuuti yile yu xeebu yile ñu fas yéene yëkkati kàddu yi sëriñ Moustapha sëriñ Habas ak journaliste bi ngeen àndal. sëriñ Sonia bu Diop. kaddu yi nga xam ne dégtal ngeen ma ko mu bàyyi ko ci sëriñ bi li ma ci njëkk a tontu rek moo di samaan wa taatan ni nga xam ne ni la ko bëgge fas nañ ko yéene jafe noone noone mu ko limee tàmbalee ko ci sëriñ Abdou Khoudous moom ci boppam moom sëriñ Bachirou fas nañ yéene lu ñu defoon ca sëriñ Abdul Xudoos ba agsi ci moom tey luñ ca mën a yokk dañ ko ca yokk te gëm nañ ne sunu borom dinañu ca dimbali ndax pas-pas ak yéene ji moom mi ngi fi te it leneen dolliku na ca mooy yéen ñi ànd ak njabootu biir kër gi am nañ yaakaar ju toll ne lépp luñ ci taxaw rek buñ ko àndee wëlbatiku xool ñi ni bokkul borom daaru muuti nii mu ko defe ci kër yëpp kenn ku ci nekk la mu man ñu ànd ko yaakaar naa ne yàlla dinañu dimbali ba ngërëmam li ñuy wut danañ ko am te lépp dana feeñ ci njabootu borom daaru ak dëkku boroom daaru muxti bi di daaru muxti ci boppam di seeral ñëpp ne lii mu yëkkati ci ay kàddu jëme ci noonu parce que nañ ko yéenee jafe te ab tàmbali rek la ab tàmbali la ci nun waaye ab tàmbali la ci liggéey bi nga xam ne moom lañu war a liggéey ànd koog moom ndax su ma tuddee tudd sëriñ Cheikh Astou Faye loolu ab tàmbali la waaye liggéey yi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi nekk ci njaboot gi bu soobee yàlla lu ci war a dolli ko danañ ko yëkkati ci aw turam ba ñépp dégg ko kenn ku ne fa nga war a féete ak la nga war a def ci ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal borom Darou Mouhty ak ñi nga xam ne ñooy seexi borom Darou Mouhty yi lépp lu fu war féete ak lu ci waay war a def incha allah buñ ko saytoo ba seet ko kenn ku ci nekk danañ la wax wala ñu yëgle ni nii la ñuy doxalee nii la ñuy doxalee moo xam bu dara xewee la moo xam bu dara xewut moo xam màggalug daaru moo xam du màggalug daaru lépp rek loo xam ne day tax sëriñ bi uh, gërëm nu Euh, sëriñ bi eh, la mu séntu woon ci noonu dara mañ caa manqué bu soobee yàlla loola moom képp ku war a mën a àndal def ko dinañ ànd ak yow def loole kon nag lii ab tàmbali la ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati jëme ko ci borom daarul moxti ak ñu borom daaru muxti ak daaru muxti ci boppam ba tax na euh, buñ teyloo tuuti rek te déglu dinañ gis ne am na yeneeni taxawaay yoo xam ne bu soobee yàlla sëriñ bi dana ko yëkkati te su boobaa danaa leen ko jottali nañ ko war a jottalee ànd ko ñu ko war a àndal te su boobaa itam nañu xam ne kenn ku nekk nag ak la nga xam ne moom la la yàlla dencal ndax li mu war a taxawee ci dëkk bi ak yeneen ak yeneen yëpp lu ci nekk du ma ne tey lay doon du ma ne suba lay doon waaye fan fu ci ne lam ca war a taxawee dana ko dana ko wane ba ñëpp dégg ko dana ko dana ko wax ba ñëpp dégg ko dana ko wane ba ñëpp gis ko loolu mooy li nga xam ne daal sëriñ bi waroon naa ko dolli ci kàddu sëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne ñoo ngi feddali sunuy sunuy ñaan ci Serigne Abbas mi nga xam ni moo ko jiitu ak ña ko jiitu woon te muy loo xam ne lii lii mu wax de euh, jàng jàng jàngale na lu bari ndax ñi nga xam ne gëmuñu yàlla sax bu ñu amee mbokk mu loolu ñu tuddee cinéma sax duutuñu ca dem dinañ ko may ay ab diir boo xam ne duñ dem sax cinéma ñoo ñoo xam ne gëmuñu yàlla sax kon ñaar fukki fan ak benn yi nga xam ne wala ñaar fukki fan ak ñaar yi tey ci demuk sëñ sëñ gi mu door a yëkkati kàddoom te lii mu nuy wax ni ca bis ba ci boppam lañu ko waxoon waaye lépp nag dafa tegu ci xam-xam moo tax mu doxale ko noonu kon noo ngi ñaan sëriñ Abbas moom itam yàlla dolli ko ay xéewal te euh, boole kook mboolem ñi nga xam ne ñoom la nekkal ca barab boobee njabootam gi itam ma feddali leen ci seddali sëriñ bi ne ñoom itam sant naa leen ci ànd bi ñu àndoon ak ñoom ci liggéeyu sëriñ bi te xam ne liggéey bii ñu sumbaatee tam ñun ñëpp ko ñun ñëpp ko bokk ndax liggéey borom Daaru Muxti la moo xam kër sëriñ Abdou Khoudous la moo xam kër sëriñ Cheikh la moo xam sëriñ Abbas la waaye dañuy mën a wax rek ne lépp luy njabootu borom daaru rek ci njiitu kër sëriñ Mamadou Awa Balla mi nga xam ne sëriñ Moustapha moo ko jëmmal dañu xam ne liggéey bi yëpp ci nekk kenn koo xam ne euh, woo nañ la rek ci la la nga xam ne jàpp nañ ne man nga ko na nga daal fëtt ko te dugg ci loolu te xam ne liggéey bi du liggéeyu kenn du liggéeyu ñaar du liggéeyu ñett liggéeyu ñëpp. ndax bu ñu nee daaru moxti rek daaru moxti la bu ñu nee borom daaru borom daaru rek la te lépp loo xam ne dellu na ci borom daaru moxti wala mu dellu ci njabootu borom daaru moxti wala dëkku boppam bi jàpp naa ne loolu su boobaa su dee xam ne lu ñu lu ñu taaroo la wala lu ñu rafetoo la wala lu ñuy lu ñuy bégee la ku ñu tudd tudd borom daaru moxti ku nekk am nga am nga am nga cëb cër kon nag noo ngi sant bu baax te xam ne incha allah Euh, nii moom ab tàmbali la waaye dañ fas yéene waxtu wu nekk ñu communiquer di ko jottali ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal euh, muy sëriñ Moustapha ndax yow sëriñ bi moo ne ci dégg nañ li mu wax ci yow te wax nañu ko ci biir kon nag jokkaloo gi moom incha allah te sëriñ Moustapha say jox na la ci ndigal kon nañ xam ne liggéey bi rajo bi rek boolewula ci sëriñ Bay Njaay cël rek boolewula ci waaye dafa am leneen loo xam ne da dolli ko te mooy nekk ci barab ña nga war a jëflanteel ña nga ña nga xam ne ñooy sa kilifa itam nga fexe ba am ci ñoom kóoluteef kóoluteef dafa am solo ma jeexale ko ci lii rek sëriñ Abdou Khoudoss dafa daan wax ne boo dikkee di ko leen danaa la demal rek bul gestu la ca des moom mooy ki la ki moom noppalu yow mi ñu wóolu nag yaay sonn boobu nag fasuñu ko yéene daw te duñ ko bañ te duñ ci bañ dara fasuñ ko yéene sot sottal wut ci ngërëmul sëriñ Basiiru mi nga xam ne tey si tey moonu ko teg suñuy wagg te ngërëmul sëriñ Tuubaa lañ ci wut ak borom daaru muxti ak ëllëg bu nu dajak suñu borom nu xam ne wa man yuhasim xurumatillahi fa huwa xayrun loo inda rabbihi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu